xam nga groupe ay dof lañ amuñu xel xam il faut ñu xam ne groupe ay nit lañ ci société lañ bokk ci société lañ dëkk moo tax ñu xool xam ne hôpital yoo manqué deret gars yi volonté wu ñoo def def don de sang waaw. ñu gisal récemment après élection juste da ngeen fi defoon ay ñenn si yéen am na ñuy frustré woon est ce que mën nga dolliwaat su waral tey ñenn si yéen am ñu frustré woon. waaw frustré ba léegi tey ba gars yi ba tey ba suba ba sànq ñuy frustré wu mais ku mel ni tey suñu papa ji rek moo ñu defal Abdou Fall bi moom chaque jour moo ñu defal. mais ba tey groupe man fa tey am ñu taxoon tey parce que ñëpp waxuñu xel am ñu taxoon tey pour taxaw pour dem volonté wu ji xam nga dem ko xam nga parce que président bi ñuy moom dafa am ñu toogaloon ñu xamal ñu bi ñuy dem kontaan maanaam nañu jël kaasu gars yi mais bi ñu paree mun ñu gis ñu président dégg ñu président te yéen gars yi waxal noonu tamit kenn ku ci woote dooñu faale bi am na maanaam am na structuration su ma waxee loolu am waaw lu kayit yooyu yëpp ñu ngi ci daanaka du des ay fan yu néew day pare nena ñun toguñu parce que groupe Manafort benn groupe la bo xamné ni dafa paré pour djuk pour jappalé képp ko xamné ni xam nga yaa ngi si ginnaaw affaire ñun mënuñu bañ président dañ ko bëgg ay jeunes lañ dañ ko bëgg parce que mënoon nañu def fi rek toj oto wala di sali pour wala demee affaire mais bu ñu conseil tamit moy suñu papa yi mu ñuy conseil dañu teg si yoon lépp lu wax dañ koy def mais mënoon nañ def de bëri jël beneen yoon waaw boo leen fekkee seen revendication ngeen di wax ni saafarul tey yan jéego ngeen yaakaar ni ngeen ko def pour mën a ñi ñu war a dégg-dégg leen groupe mën na fa buñ taxawee buñ taxoon tey dañuy baare télé wala ñu def benn affaire wala ñu toj dara kenn mu ñëw duñ ko def nee naa la conseil mu ñu fi bàyyi moo suñu papa ji moo ñu daf leen dal Pape Abdou Fall mii moo ñu moo ñu moo ñu dalal da daf leen nank dana demee nank di wax ñu duñu conseillé mais ñun groupe brayi fii ñu def ñun xam nañ ñu lu ñu bëgg a def kenn mënuñu ko tee def kenn mënuñu ko tee def violence bi ñuy gis ci élection wala diiraa campagne bi mën a doon ñu leen koy assimilé ñu ne yéen waa Marodi fa da ngeen violent loo leen tontu ci loolu waaw mais loolu loolu moo waral nag ñun dama dama suñu conseil tranquille toog suñu papa ji ma conseil ñu teg ci yoon dama leen yéeg yéeg yéeg nii moo tax ñu dem moo tax mu demee nii tey xam nga mën nañu def simeeku dem ba pale simeeku fa def fa yaram neen gars yi xam nga yooyu yëpp ay détails la mais duñ ko def xam nga dañu bëgg lépp ci àdduna bi lépp loo gis ci àdduna xam nga nànk-nànk la te boo may boo demee ñu la jiital nga am ay kilifa bi bu la waxee da ngay def li la wax loolu la war a si papier lu ñu wax la ñuy mooy nekk seen plan d' ah seen plan d' yi jéego yi ngeen di teg pour nit ñi pour seen. revendication waaw xam ne ñu xam ne ñi def euh, euh, garde corps rapproché dañoo bokk société bi war a jaar dañoo war a jàppale. dañoo war a jàppale ñu ànd benn autorité ba pare ànd moom liggéey ba pare mu bàyyi ñu fi dem seet di seet leneen ñoom seen affaire baax ñu casé ñun duñu casé wu. loxo ci poche dañu see dañoo war a jàppale yi ñun loolu moo wax dañuy jàppale éléments yi parce que éléments yi sonn nañ trop waaw mbëbët bi mooy ñoo xam ne jàppale suñu mbokk hôpitaux yi ñuy blessé ñuy gaañu parce que ñuy wax ñun ñi am na ñoo xam ne élément yoo xam ne dañoo blessé woon am na ñoo dañoo damoon ba tey am na ñoo ne wéruñu mais ñooñu pourquoi ba ñoom dañuy soxla deret ak ñeneen mais bu ñu ko xoolee foofu ñun dañoo war a volonté wu maye su maye a may deret parce que moo ko soxla hôpitaux ñoo ko soxla loolu tax ñoo volonté wu def ko te yàlla rek a tax xam nga mooy lii

gare ko privé moo ñu jur foofu xool dafa terrain bi précurseur dafa ba mu mat mu ñëw dugg dafa dem def génn mais tey gis nga nu mu demee war ñu mën a bàyyi gare ko privé fii ci ginnaaw di dem di dem noonu tamit xam nga yombul yombul gros bras may deretam yombul ponkal bu entraîné am dooleem di may deretam yombul gars yi il faut ñu demal suñu xel yombul il faut ñu xam ne gros bras ay nit lañ il faut ñu xam ne gros bras dañoo am ay soxla am jabar ami doom war bëgg am kër war bëgg am leneen leneen bëgg investi seen bopp nee naal bi bu ñu demee ba taxaw tey ba taxaw tey dañ koy gërëm suñu papa ji mhm. à cause moom a tax mu demee nii borom gaynde mii moo ñu jàppale xam nga te autorité bu nekk am na ñoo xam seet nañ leen mais ibluñu seen buntu mais moom moo ñu dimbali jàppale ñu mais lu yombul may deret yombul waaye may la xoolal su ma limee damay juum du ma wax sax surprise lay doon gars yi ngi fii après yi mën a lépp gars yi dañuy kontaan ñoom si kàttanu yàlla waaw waaw quartier Mbour daal ma bëgg wax xam nga président Macky Sall nañu jàppale da jàppale groupe waa Marodi du feu xam nga parce son nañ trop son nañ trop xam nga dàq nañu bëri am na gars yi nekkoon ci éléments yi ay boîte mm, dañ leen dàq am ñu doon liggéey si yeneen si yeneen milieu yi dañ ne ni ñun ñun groupe Marodi du feu ko bëgg quoi dañ ko bëgg dañuy jàppale te yar rek a tax xam nga jóobul gars yi ñu casé amuñu benn site bu ñuy baa ngi fii teeru baa ngi fii xam nga terre baa ngi fii euh, port a ngi fii xam nga dem di nga fi fu jël gars yi rek jël benn quota la dugal foofu gars yi mën na dem liggéey kudd ku dégg fii data kudd ñu koy gërëm bu baax data kudd ñu ngi koy gërëm bu baax parce que ñun toog nañ lay saw toog nañ toog nañ mu encouragé ñu xamal nañ ku jàpp président nii ngay def xam nga kon ñu koy gërëm bu baax a baax a baax waa santé ñoo di gërëm ndax bi ñu Abdoulaye Diouf Sarr bi ñëw tamit yaatal nañu Abdoulaye Diouf Sarr yaatal trop waxtaan na ak moom yaatal ñu xam nga te ñu si condition yu baax wax dëgg fa yàlla ñun amuñu leen lu ñu wax encore une fois tamit mbay ñu ngi koy gërëm ministre conseil ñu koy gërëm bu baax a baax encore une fois tamit ñu gërëm suñu papa ji ñu ngi koy gërëm amuñu fayam mu ngi nii Abdou Fall mii amuñu Doudou Fall papa Doudou Fall amuñu fayam ñu ngi koy gërëm bu baax a baax hôtel yi bëri na lépp moo fi jël engagement am voilà jox ñu lépp jox ñu ndékki te boobaa nee na tey tey kenn dem ñoo ngi moom fii suuf fii ba ngoon kon donc dañ koy ñaanal bu baax yalla may ko gudd fan wër lepp lu mu bëgg yàlla jàppale ko. merci bien bala ma dugg ci lolu ma ngi nuy Sénégal gi yépp di leen féliciter si seen mobilisation bi Sénégal def si Coupe d'Afrique bi xol yépp daje ñu ànd jàppale li Lions yi gaynde yi ba yàlla may ñu ñu dem ba final c'était tellement beau. cérémonie d'ouverture finale bi ñu gis drapo Sénégal ci vingt-quatre pays yi fa nekk loolu ndam la mhm. ndam boobu ndam bu rëy la pour Sénégal te lépp ànd booloo xeex jubo jàppalante xeex ndam moo tax yàlla yóbbuñu ba final suñ ne final nag finalité la rek le reste ay récompense la finale on a très bien joué on a gagné on a gagné pourquoi on a gagné parce que le plus grand football réel bu le meilleur jeu c'était le Sénégal finalité n'ak finale la rek àgg qui ni ci pandaw la n'ak ñaari récompense la am kii qui ko war a jël kii moo Sénégal n'ak des récompenses, récompense am nañu pare Je gaynde euh, maa ngi féliciter encore une fois marron du feu ay xalé yu goor yu jàmbaar yu gëm sen bop ndax gëm sa bop moy nga xam fi nga jëm and ak président Macky Sall ci élection yi dégg nañu lu nekk ñu and ak sen dal ak respect jiñ nañ leen lu nekk def nañ lu nekk pour décourager leen def nañ lu nekk pour salir leen ñu and ak sen ngor ak seen sutura seen fayda ak seen bëgg seen réew loolu tey wane na ko wane nañu ñii tey ñu bëgg seen réew lañu ndax ñoo nekkoon ci naaj bi hmm. léegi ñu ngi waat si naaj bi tey kon lañ naaj boobu ñu newoon dëgg la woon si ñoom tey naaj bi ñu nekk tey dëgg la si ñoom ñoo ngi nii si naaj bi di maye seen deret pour jàppale askanu réew mi loolu nag amul fay nit ñi de damay dégg ñuy wax ku joxe lekk yàlla joxe lekk la bëgg waxatuma laak nag ay joxe sa deret joxe sa deret moom fa yëpp mën a may fa mët yëpp mën a yem ndax loolu ngay defal tey ay néew ju doole ay ñu nattu daal nga suturaal leen ñu yaakaar lu dul yàlla yow nga jël sa deret jox leen pour au moins ñu mën a génn si tolof tolof yooyu ak feebar yooyu yu nekk kon amuñu lu ñu war a def lu dul jàppale leen encouragé leen tappale leen ay médailles loolu daal laa moo tax tey man mi ma am fullaak fayda xam ni ñii ñu jara àndal lañu ñii ñu jara jàppale lañu te man mii di wax yow suma business yi ma am yëpp sécurité yi ñoo ko yor am naa usine am naa night club am naa restaurant ñoo yor sécurité ay liggéey liggéeykat lañu. sunu kër yi ñoo yor sécurité yi sunu quartier yi ñoo yor sécurité yi hôpitaux yi ñoo yor kon sant yàlla kon ñii gàcce nga alaama kon ku ànd ak ñoom tey vraiment danga nga war a am une fierté d'être vrai sénégalais.

donc sooy wut jàmm bulu jàmm yow rek ngay wut jàmm wutaale jàmm ñi nga dendal ñi nga dëkkal say dëkkandoo waxatuma laak nag muy affaire intérêt national comme lii xew tey ndax deret yi ñuy maye xëy na sax Macky Sall bés danañ ko dina ko xëy na kilifa diine bi mala dina ko soxla xëy na maire Dakar dina ko soxla xëy na suma waajur yi daan ko soxla seen waajur yi ko soxla kon na sant yàlla loolu tamit ma intervenir oon affaire nationale la ndax kat luy paralyser suñu réew waruñu kon nangu Sénégal war nañu xoolaat suñu bopp xam ni tant que jàppalante wuñu génn si problème yu ñu nekk problème yu ñu nekk dégg ngeen coow yi bare na coow bare na alal sax ñu koy xëccoo mm-hmm. ñi ngi xëccoo bay suuf mm-hmm. xëccoo suuf da ngeen coow lu suuf li so déggee mën a suuf mooy pétrole bi fi xew xalaatuñu dee de ñu profité l'occasion pour ñu yàlla na yàlla xaral taj ajana Ousmane Tanor Dieng di woon nit ku baax acteur politique yëpp dajaloo kilifa diine yëpp dajaloo ñu rob ko si jàmm si teraanga si timis waxtu bu seel sant yàlla mobilisation bi ni mu am yàlla nañu ko yàlla may yàlla na yàlla may ñu sut koy fan googu nag nañu defar Sénégal mhm. nañu bàyyi xiiroo yeeg ñaayoo yi suuf yi ñuy xëccoo baaxul suuf baaxul suuf baaxul senegal nag talu ñu dul alal ay immeuble ak xëccoo suuf rek kon ñu ni naan la malédiction du waaw xam nga Macky président maki Sall kum fagarul la avant ciow li xam xew dafa dajale won ñep jam ñaaju ni ñew leen ñu waxtaan ci mbirum pétrole kon xamon na li xamon na li ndax suuf sunu borom ko mom soy gas loy am soy gas pétrole loy ñëk am ndox lan mo ëpp valeur si doomu aadama luy dundal doomu aadama. indispensable ndox. ndox ndox après nga dem yaa ngi wuti ay gaz ak pétrole loolu safara la li gën a sell bi mooy ndox nit ñi nee nañu alxuraan nee nañu jaay ndox baaxul nit ñi suñu lay conseillé dañ lay wax sax gasal teen ngir doomu aadama di si lekk. di si naan jur gi di si naan nga xamni ni suñu gexé ni alhamdullilah yalla ni ak fa ki ko fa gas pétrole nak mirum safara la mirum seytane la dekk yi mu dugg yépp dañu am problème libé nga ne la ñooñu ëpp pétrole ñaanu yalla fiñ mel na ñoom Tchad nga ne dañu am pétrole nigeria nga ne dañu am pétrole Iran iraq nga ne dañu am pétrole teji ji ñun tané wuñu ñoo leen ëpp jàmm ñoo leen gën a féex ñu nag suñu féexaay boobu seytaane ñëw na nag bëgg yàq suñu Sénégal suñu diine gi suñu booloo bi suñu ngénte tabaski yi suñu yi indi pétrole pour mu taal suñu réew buñ ko nangu nañu delloo si suñu xel xam ni mbirum yàlla la kenn xamul na daan ko fekke Ousmane Tanor mi usman Tanor mi gi Ousmane Tanor jeng mi génn aduna du ko xamuñu keneen ku koy fekk kon nañu delloo suñu xel ñu dal te lépp nga xam ni ñoo ko moom ñoo ko bokk dañ ka fiy bàyyi. sa kàddu ba mujj. alhamdulilah encore une fois de plus maron du feu lay waxal pare naa leen jàppale comme ni ñu doon jàppale premier Macky Sall danañ demander pour ñu encadrer leen teg leen si yoon ñu ay xale yu jàmbaar ngeen structure yi ngeen mën liggéey bare ñoo ñuy toog ñu waxtaan ñu orienté leen teg leen si yoon te yéen tamit ngeen di sensibiliser jeunesse bi dem si quartier yi di wax ak xale yi agression yi wàññeeku ah problème yi wàññeeku agression yi nekk si quartier yi dañ ngeen jàppale réew mi pour jàmm mën a am jàmm rek la ñu mën a am pour mën jëm kanam